ak su fi ñëwee ban taxawaay la fi amoon ak mu jàngal ñi moo laa naa mu rabbil xaw mi digganteem ak no ak solo sa ziyaara ak ziyaara bi nuñ siy ñëwee ñu siy duggee ak mbooleem nit ñu fi fekk ñii ñoo ngi duggee ko Dakar ñi ñoo ngi jugee ko feneen waaye actuellement fekk nañ fi waa Dayratul Xula ñoo ngi fii ñu jàkkaarloog Baye mu nekk mu xaddamu sëriñ bi mu nekk conférencier ak waxtaankat boo xam ne ràññee nañ ko. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi حمدا لا يماثله عدد النجوم وقطر البهر والديم ثم الصلاة على عين نبوة من قد جاء بالأمن والإسلام والأمم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي شيخ أحمد yow ñu ngi lay nuyu Seydi Cheikh Mouhamed moom it nekk li Jibril waxoon mën naa koy wax la wala li Seydina Mouhamed waxoon Jibril kii laaj moo gën a xam ka may laaj moom it alhamdulilah muqaddamu sëriñ bi la jox na ko ijaas alhamdulilah waaye Cheikh Abdoulaye Dia mi ñu war a ziyaara mooy ki ko tarbiya kon moom ñaari wàll yëpp yaakaar naa kenn gën a koy xam ñu ngi sant yàlla bu baax di nuyu di sàkkoo ngërëm ak barke ak tëbb ci mayu murabil xaw mi al ustaad Ahmed Ba nga xam ne lépp lu ñu am am tey wala lu ñu amati ba pincam yàlla rek may la bu tukkee ci mayam ñu ngi nuyu bu baax bi bu màgg bi di Cheikh Ibrahim al wax naa ne Ahmad bu fa doo Zahir Ibrahima doon na ko loolu ci la woon ku ne xam ne ne ci wilaaye ba Ahmad fado ibrahim moo ko donn bu ñu demee ci xilaafa ba tey dangay gis ne lil waaris maalil mawruus dara toxul xut ñu ngi nuyu Cheikh Ibrahima ba di nuyu mbooleem taalibe yi ak muqaddam ak soppi ak karidi yi di nuyu bogge di nuyu suufu bogge di nuyu jëmm ji nga xam ne wax naa ne jant wala asamaan timut ku gën Cheikh ja wax naa beneen bés ma ne ak kenn tànk jëm ci ku gën Cheikh ja waaye kenn demul di ziare gën ku gën ku gën a mat gën a am wilaaya Cheikh Abdoulaye Dia ñun nag alhamdulilah ñëw nañ fi ñëw ak oustaz Ba lu waaye ñàkk ñàkk xam dana xam ne oustaz moo ñu moo ñu tax a ñëw te it lépp lu ñu xool ci mbeddi bogg yi moom la ñu gis man waxuma la oustaz Ahmed danaay wax ne bañ déparé def convoi bi oto yi ma gis ñi def nii mooy xuy xamañ googu signal danse yi signal danse bu ñëw rek ma gis oustaz ba ndax may fàttalil bu ñu daan dem di tukki béyagoo Sénégal di ñëw bogge oto yi noonu la daan demee noonu daan deme moo tax oustaz daay wax na boo demee ba it boo demee ba ba ma demee ba yi tëgg yi fecc yi ñoo ma Seydina Muhammad mu waroon naay fàttalil gars yi bu nekkoon gumba wuñ waaye dañoo gumba man waxuma la ñëw gu ma ñëw bogge mais dama ne lamp oto yi rek signal danger yi si laa doon jànge oustaz ba mooy bu ñëw rek moo moo iskay te yoon yëpp lu métti métti doo mën a yëg métti ndax yaa ngi gis mu rabil xaw mi ci biir alhamdulilah ñëw nañ mën a ñëw ak oustaz Ahmed oustaz Ahmed nag ku ne xam na ne taalibe Cheikh Abdoulaye jala loolu yàlla na kenn sikkut ci taalibe la boo xam ne sëriñam da koy tiituroo Cheikh Abdoulaye wax naa ko Cheikh Moussa mu ne ko man mosuma gis Cheikh Abdoulaye di nuyu di nuyuwaanteeg oustaz ba toog ci suuf mosul am benn yoon suñu waxaan ne oustaz mu ngi ñëw Cheikh Abdoulaye du mën a toog moo bu nekk rek mu ne bëreet jóg ñu ne ko toogal. mas na toog fi mu toog ci der bi mu wàcc ko ne oustaz ba toogal loolu leneen la matak jëmmam la mais doyob taalibeem la di oustaz Ahmed Ba alquran moo ñu jàngaloon ne wal walidaatu yurdi ana awlaaduhunna hawlayni kaamilayni yaayu jigéen ñi la bu leen jaawale waxut wal walidu de yàlla du cuune xam na nu waxee yàlla dafa xam waxin wal walidaatu arab yu leer nañ la yaayu jigéen ji dañu nampal seeni doom bi ñaari at yu mën sëkk loolu nag mooy ñi nga xam ne bëgg nañu matal nampal gi mais yaay góor na ñoom yaay góor seen nampal gën na gaaw loolu gën na gaaw loolu oustaz ba li coow li bëri bëri bëri bëri bogge bogge bogge bogge murtani murtani ma ne at ak fukki weer la def ci Ablaye Dia képp képp mot ñaari at de xam nga yaay yi dañu nampal seeni doom ci ween at nyari at la alxuraan wax ba pare feral bi top to ko ba léegi beneen nampal la dox sayru li ngay touré sama naam ko xam yalla lay wax na ci ndol ma ngi lay wax léegi ma ngi lay wax ci dëggantaan yàlla waxuma ni? nampal weeni nii de maa ngi duggee ci benen batine bi ndax laysa minna man lam yulat maratayni kon maa ngi wax ci benen dëggin su dami ji demé ba am ñaari at moy fanaw bobu jeexna na fum na fu mu nekkoon xàmmeewul xale bu am xam nga xalé bu am wèr ñaari wèr xamul jagn ak jor mu ngi ci xaddatul qudsi innal manqi siwaaha laa siwaaha yaa man yurumu liqaaha xam mu fa dara la fa xamul foofu moo tax li koy dagg mën na koy laal mën naa laal li ko jëriñ mais xamul njëriñ yaa ji moom ba fanaaw bu dëñ ndax bu toon loolu du baax fanaaw bi dafa war a jeex mu des ba xaaw wa fanaa yi fanaa fanaa fanaa yi wajatu anta ba xaaw wala nga ne yaf naa suma yaf naa suma yaf na fa kaana fanaahu xañul baqaay bu loolu amee des na nga ànd xale bi mu xàmmee mën a raam mën a dox ba xàmmee dox xadraar yi raamang fa dégg nga gannaaw raam jàng doxang fa gannaaw jàng dox dox taxaw temang fa ganaaw tax di dox nag doxin boo xam ne dul taxawooti bàyyi wax ne man zaqaha yasri sarel abadi yenil maarifa min faydil madadi dox bu warta am taxawaay ndax ci biir yàlla ji la Oustaz Ahmed ma ne ci at ak fukki weer ci la nàmp ci la jang ci la dox sayru bo xamne ne ma man lima jele ci at bobu ak fukki wéré moy défar suma aduna ak suma alakhir manam wax moom namp namp yàgg yooyu de benn waaye la mais bay wax nako nako on fur li nafsi bi ran watruk anka abral akhirin. jot na nga fer nak lako bay wax gëstu la sa bobu ten te bàyyi jamburi jàmbur dem rek bëgg am ku la nampal doy na fer nga oustaz ne at ak fukki wéré moo ko wax ci làmmiñam de jomb naa di ko di ko di ko fenal fukki weer rek la def si Ablaye Oustaz nee na man lépp lu man nar a amati ci kaw suuf adduna ak alaxira ci at boobu la ak fukki weer la am si Ablaye Dia loolu nag taalee bu dëgg la waaye fekk ku mat sëkk nag mu xamal ko muy si Ablaye Dia Oustaz Ahmed ñëwam ci bogge loolu lu jafe la wax nañ fi moom wax nañu ci làmmiñam ne la man ñaar fukki fan ak nangam. ah ñaar fukki fan ak juróom pour bëgg ñëw boogi mu të booba mu ne atam 2000 la mooy xaalis dafa jafe woon lool kum laaj paas mu gàntal ko nga jox ko 2000 francs loolu lu passé la mais ba mu demee ba mat ba namp ci sëriñam ba gëm ne da ko war a dolloo njukkal yonent la Muhammad dafa def ci fannaaw fannaaw gi ñu bëri xamuñ ko ndax ndax innaa fatahnaa laka fatahan mubiinan loolu fannaaw la bu la neexee doo defati dara doo julleeti doo woorati doo nangamati mais dafa des na nga def baqaaw baqaaw gi mooy Fatima ma ñëw ne ko yow yàlla moo wax ne jégal naa si bakkaar yëpp loolu dafa ti mu ne ko afala akuna abdan shakuran ndax du mu nekk jaam bu sant akoon kun julli yeeg wóor yi lan la sant la ndax du mu nekk jaam sant oustaz ba mu demee ba am may gi ci at a fukki weer bàyyi leen xel mu des nag di sant Cheikh lay ja bul gis ci àdduna nag oustaz bëggee ne Cheikh Abdoulaye Dia wax ba may béyee ko boggee di ñëw fii béyee ko senegal di ñëw boggee moo kenn nit ñu la ànd ñëw bu métti lan ñëwee fii parce que boobu dara amut bu leen fàtte bu kenn bëgg a roy oustaz si tey bu mu neexee de am na fukki at yoo xam ne benn bool lay ak lay lay lekk mooy nekk añam mooy nekk reere mooy nekk ndikkim benn bool benn bool bool boo xam ne bu ñu tibbee ba la ñuy tibbaat bool bi jeex takk bool boobu timis laay lañ koy ubbi timis kun tëdd na nelaw wala tëdd na fàddu nit ñi parce que benn bool moo war a ñëw ba timis mu door ubbi bool boobu ci laay mooy nekk añam mooy nekk ndekki mooy nekk reeraan bu ñu tëbbee ba bool bu jeex bu kenn yaakaar na mbir yàlla ngay xëy rek mbir yi rek ne nii rek leer nañ am na ñu taxawoon ci saaxa bi ne ko mata nasrullahi kan la yàlla dañu ndimbal yàlla waxtu bi neen laay ba ala inna nasrullahi xarib bu leen yàkkamti nag nekk leen ne war a nekk rek ni mu yàlla lu jege la jaar ci coono yooyu ba mu ñëwee ci boggi mu ne moom ak benn nit dem ba mu moom ak ñaari nit dem ba mu moom ak ñetti nit maa kaana lillahi daama wattasala wa maa li gayrillahi inqataa fasala lépp luñ sos fonde ko fekk yàlla rek moo tax dana wëy dana continuer lépp lu sosu te la taxut dara du continuer oustaz ba di ñëw ñëwin bu mujj bu mujj ñëw wax naa ne li topp ëpp na di nga juróom juróom ak juróom benn mu toll ak allahu yàlla dafa laaj Jibril euh, Moussa mu ne yàlla wan ma yaay kan ñu bëri dañuy xaw a am problème mu lan taraan yi mu ne ko lan taraan yi ba nga waxee warutoon am walaakin kon kan lañ doon wax Moussa lañ doon wax te kenn mënta nekk Moussa di xam yàlla yow mii sax soo nekkee Moussa doo mën a xam yàlla foog nga ne jógee ci musa gi ndax démb nekkoon nga fi te Moussa nekkut fi tey da fi jog te Moussa du fi ne <laughs> jogal ci jog googu nee naa gars yi benn bés ma ne leen glace problème yëpp mooy glace gi rek. boo wooyee glace mu ne xujj ne maa ngi ñëw waaye ndox nga war a wooyee ndox ñu xamul nag ñu ne jëlal ndox mi def ci glace bi <laughs> loolu dafa ma ko war a wax mais dañ koo nangul jëlal ndox mi def ci glace bi kenn glace bi ne ko ndox loolu beneen affaire la uns ilal jabali nag mooy 66 xoolal ci jabal jabal la 66 boo ko isaabe yàlla mu ne ko xoolal ci yàlla loolu la rek xoolal ci yàlla gis ma wa fi anfusikum afala tubsirun kon nag ñun ñëw nañ fi ñëw 66 tey nag ñëwin bi ñëwin bu yéeme la démb toog nañ di def benn sondage si ñëw bi mu jox ñu kënzu kënzu kënzul xaqiqati kunuuhaa wa muraaduhaa nafsul baqaay wa rawuhu way jaaw mu ci ni moo ko wéy wax naa benn bës ma ne liir naa ci biir dawaa institut bi li bàyyi di wax yonentul Muhammad ci baatu kënzu mu nekk fukki kënzu ak ñett muy treize treize mooy bàyyi ba tey ba ma waxee Kanzu la ñëwee sëriñ bi bu baax bii dem eh, dem ba mu ne ma Kanzu it mën na nekk Izzu buy firi tëdd nga Izzu tamit ba tey ayin soixante-dix la zaay dix-sept mën ngaa ah, loolu beneen la Cheikh Moussa Diop mu ne mën na nekk wallaahu wallaahu ba léegi boo ko xoolee wallaahu moom mooy yàlla moom mooy yàlla mën na nekk mën na jàpp tamit ba tey soixante-dix-sept di Kanzu ku ñëw bu doy waar lañ ñëwee ren waaye ñëwee ak mbëggeel ndax ñun dem nañ ba xam ne maatu wa ma maata minhum xayra hissihimu fi l aalami lhissi fal arwaahu axyaawu qawmun tawallaw li xayin laa fanaa lahu fa saaru bi dalika axyaawu kama chaawu maatu gars yi dee nañ wa ma maata minhum dara deewul si ñoom xayra hissihum lu seen jëmm yëggi rek ñoo dem waaye seen ruux yi ñu nga ànd ak ñun nit ñoo xam ne dañoo laxa suuf jox seen jëmm ki jok fi jóg mu yàlla dañu mujj même ñu fàddoo sax ñu ngi fi Oustaz Ahmed murabil qawmi musulil wahmi hibrul faydati ujubdu zaman docteur Ahmed Ba wax na benn bés acheyux fi gaybi taxya zaatuhu wa lana tadkaaru suratihi fi alaalami suur fal awliya wa in qaabat jusumatuhum fi aalami jismi fal arwaahu fi lxadari mu ne gars yi asayuxu sëriñ bi bàyyi loolu wax mais bu la neexee yow baal bàyyi ànd ak doo ko bàyyi mooy lépp wóol kullu mais jëlal feeñ waaye bi ñuy wax mu rabil xaw mi mu ngi sa xaybu waaye mu ngi dund ci yàlla te jëmmam mu ngi ñun am na benn ku ñu wax mu ne li ko gën a neex mooy ma zuub lu ko gars wooyee Demba xama Demba mu ne moom oustaz laay gis moom ci ñëw gi na ko yow ak kan ñëpp di <laughs> ñëpp moom lañu gis di ah kun dara wul ñëw nañ ànd ak mbëggeel gu mat sëkk ndax xam nañ ne sëriñ bi moom mu fi ànd ak ñun daa iman boo laa gis sëriñ bi wax ne soo fi ñëwee lépp dagaan na lu ñu jox lekkal gis naa ko jabet ñëw bogge oustaz na ko fii xadratu yàlla fii naanal fii lekkal xoolal jabet la nit ki def oustaz ko fii boo fi ñëwee ñu jox lekkal léppay wéral nit bu ci lekk yi naa lekk yi mu ne bul ñëw tànn nag bii bu weex laag buñ bojjee laag buñ bu xam yéen lii lépp boo gi mooy dëkk boo xam ne ku fi yegg si na la wóor na yegg si nga piyu yàlla bi wax naa ko tey suñuy gan ma ne ko yàlla mën nañu taw fiixu ñun bi ñu ñëw ci boggee du tànn kilim moo tax ba ne waaye nee naa ko bu ñu demee bëgg ñee sens yi ñu ay Dakar waa lañ su yàggee dañ yàq xaalu bi xaluboog gi mooy tàngoor bi xaluboog gi mooy toog foo xam ne ci mbedd mi ngay fanaan xaluboog gi ndax ñun ñëpp ku nekk mën naa am bàyyi na clim këram nit dina toog ci bi fekk bàyyi millionnaire la te boo ko gisee bëgg koy jox sa sarax xam lu tax li manqué mu yàlla la bëgg te ku bëgg yàlla foog nga jox fi nga ne wax naa gars yi may leen gis sa bopp moo tere ñëpp jëriñu président Macky Sall tey suñ ko waxoon maa maa ko doon tarbe du ñëw ci man ndax président am gi dafa rëy dafa rëy bala koy simmeeku ba ñëw ci man day fekk tard na bu yàgg moom mais lu mu nekk nekk président Ghazali moo gën a fort ci xam-xam ci wilaya ci daraja ci maqaama waaye lan la def ba mu bëggee yàlla ci uude boo xam ne te loolu bàyyee ko wax ci làmmiñam ab uude bu ne ci marché bi la ñëw uude bi ne ko da ngay simmi sa Ghazali mooy lan taraanee gi amul kenn ku yegg ci yàlla te simmoo sa Ghazali gi da ngay simmi sa Ghazali gi douze bii laa bëgg yi ci marché bi del bale yëpp mu nangu moom buur bi moom borom xam-xam yi ëppoon xam-xam jamonoom def noonu def noonu yàgg benn bés mu bale ba mu des benn douze mu ne bale gi dafa jeex patron bi ñëw mu patron mooy sëriñam bi nga xam ne uudi la xool douze yi yëpp mu gis benn boo xam ne mu ngi am ba léegi lu des ñu defar ko mu ne ko lu tax mu ne ko bale gi jeex ma bëgg a génn uut bale mu ne ko bale lan sa sikkiñ bu guddi bi loo koy doyee mais bale ko sa bi laa wax mu ne mu sëgg rek yegg ci ak sikkiñ bi kon am na koo xam ne sikkiñam yegal na ko ci yàlla su ma sëriñ alaaj ibrahim pour nga xam ne fekk jógoo fi mënoo nekk alaaj ibrahim ñees dafa wax ne benn waaye mu ñëwoon ci moom na ko bëgg dama bëgg tarbiya benn ganaar jaar rek day benn day man nag su ma wax ji noonu laa koy waxee waaw man damay wax amul ma ci ay li nga war a wax ak déedéet benn ganaar jaar rek day day waxoon ko cóor alaaj ibrahim na ko lekk ma day waay su bu nekkoon di xool moom ak day wi du yegg ci la baat na tukki mu sëgg rek di mar rek na cas pee bi jël ko mu yëg jaxdatul qudsi indal ma qisiwaaha ma daam yaa ngi jàpp ne yow lan yow lenn nga kii leneen la rek yow mën a yegg ci biir kon jàpp na ñun oustaz Ahmed moo ñu dara moo moo ñu tax a ñëw te billaahi wax naa bu ma ñëwee bëgg ma ne moo leen yiw buñ ci am yenn la tibb rek jox oustaz ba parce que ñun bu ñëwul bëgg danañ jëriñu fu ñu jëriñoo muy ci oustaz Ahmed ba nañu nañu leer Misri dafa départ bee ko Murtani di ziar ji bàyyi oustaz ba laa ko déggee mu wax ko lu mu wax wér na nag moom mu ne taali bi laaj na ana michir yi suma sëriñ ñu ne ko dem na seede sëriñam mu ne subhanallah sëriñ bi daa am sëriñ ñu ne ko a sëriñ da am ana sëriñam mu ne mu ngi kaw mu ne fala arani allahu zalika bu mu yàlla woon sëriñ boobu ba nu mu génn àdduna xamul sëriñ boobu mais ñun boo bëggee dégg-dégg gisuñ kenn ku du Oustaz Ba <laughs> coole mën a nii rek ñi jëmaat mais buñ la fa nee faruñ la de amru ala diyaari diyaari leela wa qablu sa jidaara watal wa maa hubbu diyaara shaqqa min qalbi walaakin hubbu man sakkana diyaara moom rek la kun nag loolu rek la kuñ gis moom la ñu gis moom la ñu gis suñu xarakaat yi Baye dafa am benn bés jour ziara mu wax lu am solo te laaj boo fa laa koy daanalee dafa wax ne Amat Awa Amat Awa nag ba nga xamul mooy ki njëkk a créé dugub ñëw waxtaan ci ak Cheikh Serigne Mbaye magu taale bii man maay wax fàttali gars yi taar ak toujours Amat Awa dafa ñëw ci Baye dafa ñëw ci Baye andil ko dugub ji diñ dajale ci ndigalu Cheikh Serigne Mbaye mi nga xam ne mooy magu taale bii bayina ko ñu ñaan mu ko de jot nga ñaan man cheikh seigne bay doy ma de man so gisee su ñëw fi duma ñëw duma duma duma ñaan lu sama am Cheikh Abdoulaye Dia atimit ah, <laughs> nañ ñëw rek ñu nañ ñëw rek na na ñëw nañ leneen li yow ba bay ko non yow pays bi xamna lool tax ñëw xamna sa bëgg-bëgg xamna na sa teef da na tibbal ba nga doyal ma la ko wax man amu ben yoon bu mu ñëw boog de suma soxla yëpp a joxuñ jarul ñaan nak ben soxla bu fi jéem am ben soxla bay créé yow mën naa am nga bëgg a ñaan te yow xamoo nu ñuy ñaanee dugal sa ñëwal rek Baye Niass mu ne toog na benn ba ziyaara di wax Baye mu ne est-ce que Amar Hawa moo jeex ci yàlla moo dëggu na ne moom sëriñam doy na ko wala sëriñu sëriñam Baye moo ko wax ci làmmiñam su ko Baye waxtoon kenn du ko wax Baye mu ne est-ce Amar Hawa mu ne moom de li ma jox sëriñam Cheikh Sëriñ Bay doy na ko wala sëriñu sëriñam di Baye Baye Niass mu ne ku moo dëggu taale bu dëggoo dafa war a jeex takk ca kam bëgg te bu mu ko utal dend noor ba kenn la ko amul ñaareel waaw bi dafa waxoon woy bi oustaz mu ne woy bi Cheikh Abdoulaye moo ko yelloo mais woy bi oustaz ba ñun moo ko yelloo ñun oustaz ba dafa waxoon ne muti na bi mii jàmbaar la waaye wax ji mu wax suma sëriñ rek comme moom def na sëriñam kun xaytu chita tasr ilayka rikaabuna nekkal fu la neex mais suñ nga war moom bu ñu ko takkee rek lañ jëm ñu ne ko lu tax mu ne fal ardu waaxidatun ndax suuf si benn la mënoon naaw te suuf si benn la wa antalu awaxadu te yaay yaay kenn ku amul ñaareel <laughs> xam nga booy wër kenn ku amul ñaareel si àdduna dafay neex a gis léeg-léeg ngay wër koo xam ne da nga am problème am na benn bés ku ma ku ma dajeeg si benn dagaay ma eh daraame daraame ma ne ko déen baa ma paaka du ma daraame de du ma de kii caam nañu koy wax de xam nga bu waa bu daraame dafay dagaa ba amul sens bu ñu ma téye jàpp ma <laughs> ah dara moom ba ma waxee mu ne ma comme mu ne ma teg teg ci wax non ko déet yaa ngi wax ay di ba moom man caam la du ma daraame mais Cheikh Abdoulaye mooy kenn ku amul ñaareel ci kaw suuf ma gis nga xaalam bi amul kenn ku mu niroo Cheikh Abdoulaye niru kenn xaal mënoo wax ne kii la Cheikh Abdoulaye moom rek la yàlla bindee bind boobu kon oustaz mu ne bayti bi Cheikh moo ko yàlloo sëriñ def na ay effort yu rëy ñu fàttali leen ko gars yi dañ koy wax ne ko gars yi ñu ne am ren ziara bi mooy ziara Cheikh Abdoulaye dañuy hommage sëriñ bi oustaz moom ne naa fan yëpp moo ko moom ku defati dara te boole ko ci safatut ndax kenn la ko jeexoon ci baay ba toog place baay oustaz ñu bëri benn muqad benn muqaddam bu mag mu ne ma oustaz ñun dafuñ ko muqaddam bu ñu lim muqaddam yi booluñu ko ca oustaz sëriñ la ben muqaddam bu mag moom ko wax Dakar oustaz du muqaddam ndax jàpp ñu sax oustaz dafa am yore mbooloo oustaz mbooloo yëpp moo ko moom fu mu dem dafa war a am kaddu ndax sëriñ la waaye ñi wane ko oustaz ba la ñuy def hommage mu xam ne oustaz moom su mu ne bànnee ko ci bi Cheikh Abdoulaye Dia moo ko bindal leetar boole ko Oustaz Ahmed Baki boo demee jaaral ci moom Oustaz jox ko ijaasa doxal ko yu bëri Oustaz benn waxtu rek mu la doxal sayru abadiya azaliya benn waxtu rek bu gàtt mu ne moom mu jox gaa yi nag ak xaalis la ca war a topp def juróom benn fukki teset ne leen yii pour organisation la yii pour ñëw ci waañ bi yii sécurité te naan xam naa ko ndax suma sëriñ xàqam ëpp na loolu muy Cheikh Abdoulaye mi bi ak Oustaz ba mi nga xam ne war a loolu mbaax la ak bi ak leneen leneen def ko ziyaare bi ndég lan ndég lu ñu tudd ne dañu war a umaas mu rabbil xaw musa alxam ñu ngi lay ndokkee ci loolu nee naa ñun la ko defal ñun ñun dañuy dem ba gëm ne képp ku ñëw bokk ñun ngay dimbale ndax usaas kenn rek la kenn loon ci kaw suuf mooy Cheikh Abdoulaye Dia kenn loon la ko fu ne ci àdduna wax na benn bés di wax boppam ne ko yow usaas xoolal sa ñaari bët yi nga xippi bu baax ndax ku mel ni sëriñ usaas Cheikh Abdoulaye da nga gis ku mel ni moom am demee lan la wax jawaabullah tontu bi mooy du mën a gis mukk ku mel ndax mayam yi ndax jikkoom yi ndax leneen leneen loolu daal amaa tontu ci question boobu soo amee beneen question bisimilah. jërëjëf nañu bu baax ñu sa kàddu ak sa wax lépp loo xam ne li nga fi wax njëriñ la yàlla nañ ko yàlla sédd mbooleem dëkk bi ak mbooleem ñu fi ñëw ndax tamit yéen seetu ngeen si oustaz nit su yaree lu baax li rek lañuy gis pour mun si gis si moom soo leen waxee ñu sentir soo leen jàngalee ñu sentir soo leen doxee ñu yëg loolu tey mboolem ki fi ñëw rek day dem di wëri taalibe fu ñu nekk. ana xadaratul oustaz ana lii yàlla continuité yàlla wéy ndax moom lu mu ñuy desel amul ñun ñoo ko desel mooy tey ñu topp ko jàngale ko ànd ak moom ak yar ànd ak ñu mu fi jiital ak ñu fi bàyyi ndax man yàgg naa mooy toog xadara dina diw jëlal kàddu moo tax tey suñ ko jëlee loolu rafet la semaines yi mujj yi ñun ñëpp ñoo fa bokk nekkandoo àndandoo te ñun yàlla boole ñag moom ay at yi at yi at waxtu bu ñu ñëwee Dakar ñu bëri xamee nañu si xadaram dañuy teew si kër gi dañuy jaxasoo ak moom moo tax tey ñii lii mooy seen liggéey suñu amee keneen tamit ku si yëkkatu kaddu ba tey baax na waaye ñoo ngi xam ne fii daal moo nekkoon dalwaayam moo nekkoon këram moo nekkoon fi mu doon wàcc ak mbooloo bi te tey suñu la ko fekkee mote nga ko wax bi sell na rafet na ñoo ngi ñaan rek nga ñaanal ñu yàlla mboolem yokkatu ak mbooleem li am gëneel ak mboolem ñu fi ñëw yàlla may ñi ziyaara bi jàll si jàmm ñi ñibbi si jàmm ñaanal mboolem ñu fi teew am na ñu fi jugee koo Ziguinchor am na ñu fi jugee koo feneen am na ñu fi jugee koo Guinée te loolu yëpp ngir mbaaxam la ngir mbaaxu Oustaz Ahmed Ba moo leen won yoon bi nit toog na ñu ne ko kan mooy Cheikh Abdoulaye Dia nga ne ko kan la waaye soo ne Cheikh Abdoulaye Dia bu Oustaz moom kooku kenn réeréetu ko si àdduna kon liggéey la nag di nit dina laaj nga ne ko Cheikh Abdoulaye mu ne ah moom Oustaz la lay wax kon ki nekk taalibe boog ki nekk feneen tax na te ceer Thierno amoon na si moom mbëggeel boo xam ne ki fi nekk rek da ngay bëgg oustaz ndax man toog na fii oustaz ñëw fii moo ngi sol dara bu zone ànd ak délégation ñaari ceer Thierno summi mbaxanam nee nañ ko laajal xadiya Serigne su defalee loolu taalibe rek am na lu tax taalibe bu mot si yàlla la te ku mu gërëm la si kanamu ñëpp man bi may jugee koo fii daf ma ne fi ma nekk fépp ak fi nga nekk ak fi nga yaakaar war nga mën a ñëw si man lu mu sori sori soo demee jëmm ji mu lu jiitu loolu xamoon naa ko ndax samay mag moom lañ jëlee tarbi ay Abib Ba ay Cheikh Fadel ñoom buubaa ñoom ñëpp ñoo bokk benn quartier. loolu nag ma dem yóbbu ko lettre bi ginnaaw diir boobu heure bi ma ñëwee dafa may recevoir dañuy waxtaan dinaa ko dégg dinaa ko lépp kon ñun amuñu payooram ñun ñoo ko deseel waxtu bu nekk ak programme dañ si war a téye war si jàpp war si ànd euh, kontaan nañ jërëjëf Baye Thiam. xam naa daal mhm. Oustaz Ahmed mhm. moom Baye la bëggoon moo tax dafa kennal Baye ci dundam yëpp. fa kenal bàyyi ci dundam yëpp yëpp yëpp bokk na ci wéy mi mujj yi dama koy fàttali toujours fa lastu ara fi l akwaani cheyan uhibbuhu si wal hubbi hibbil ibrahima dillul amaanati dem naa ba gis na man oustaz bëgguma dara ci àdduna dul bàyyi dara dara man mi soo gisee sama néeg ak sama cabine ba ma am photo bàyyi fa nekk moom moom ma ma sa néeg dafa photo bàyyi mu ne ma kaaraange la bu la neexee li ngay li ngay takki ko <laughs> loolu beneen affaire de mu bu la neexee bul takk dara mu ne waaye seen néeg rek wutal benn photo baay bu mag rek ne ko dañ da ngay takk fa non coow lu jeex na xam nga koo xam ne dem nga ba bàyyi ngay gis sa dund yëpp kooku mënta lu pay bi di réer dem na ba ci mbiram Oustaz Ahmed day wax wax nga santir bëgg a jeex ci moom mu la bàyyi ko wax te loolu ñu fi yegg de. amna bayti yo xamne da nga yaakaar ne Baye ñes mo tok ci dundam wax ko fekk oustaz moo ko wéy maa dégg ay muqaddam yu di wax ay bayti waxna ko ba tay wax wax ne Baye ñes ne nangam yalla xamne bayti oustad ba moo ko ben way da na togo mo ben bes mu ñaar fikat ak ben taalif tere lolu Baye mu la def lolu nekul nekkul man ndax Baye amna na benn taalibam bu ñëw oustad ba fikat ak juróom-ñaar la am taalif téere bu nekkee la gay kun kéemaan man ngay gëna a fukki at ak juróom nga bindi téere oustaz loolu def kon karaama bàyyi bul wax bul wax ne bàyyi ñaar fukki at benn laam saa loolu kiimaan loolu loolu karaama bu doon karaama la bàyyi oustaz ba bu ñu moo gën a karaama ndax fukki at ak juróom-ñaar képp nga bind téere mais karaama gi bàyyi def mooy yow ñaar fukki at ak ñaar nga dund ak sa waajur ba mu génn àdduna te keneen jàngalatul la lu jaaxal na ma de waxuma bind téere gi de ah? loolu lu garaaw loolu gaa ñu ko doon bàyyi xel maanaam Hadj Abdoulaye Niass. bi bàyyi juddoo bàyyi nekk doomintal doomam ci waxin nga gis ne moom mag la jàngale fonkatut ko ci ci nekk mag tukki yi tafsir alquran yi joxe tariqa yi maam tënku na te bàyyi nee na kur sama bàyyi dalul ma tiire te bàyyi après ba mu génne àdduna ñëpp ci moom ñoon xamee mooy gàggante ñëpp te kur bàyyi jàngalu ko loolu loolu boo ko xebee te nit ki bu amé ñaar fukk rek ben ci lay doora a ubbeeku ci xam-xam mom mo am ñaar fukk rek ben man doyal na ben ben téré bo xamné ñi ñu ngi wax maqaamu taxariir ki ni xamné né man ngoy jang tay faté ko déwén laaj ñu jang maqaama bay liñ ko woo ko yow alaaji mamad zainab mu ngi fi mu ngi fi maqaamu taxariir téwo bay ñu si gisuma lu mu war téw ci maqaamu taxariir yi ko ah, lo waxe dang ko mokal mu ne daal man gisuma dal lu ma mokkal noonu ko bay waxe dal gisuma dal lu ci teew gars yi oo oh, bàyyi oo oh, ma xaama oo oh, mbooloo mi ne leen kaay dund Cheikh Ibrahim Pa Amadou Thiam naxu moo wax ne dañuy jox bàyyi maqaama bu njëkk bi mu firi mu gën a neexu bàyyam gën a neexu laaj moom Zeynabu jox ko maqaama deuxième bi mu gën a neexu bàyyam gën a neexu laaj moom Zeynabu maqaama troisième bi bàyyi firi mu gën a neexu bàyyam ba gën a neexu laaj moom Zeynabu ñu ne ko yow bu la neexee ñàkk teew <laughs> mën na ñàkk teew oustaz na ci kolo jeexoon ba jàngam mi oustaz mën a wax ne am léeg nga gis ko jëm a idaafa naan maa ko xamal sax waaye ni xam-xam bi yëm nañu de oustaz ba nee na ma mérite mu fële li ma xam ba léegi kenn laajagut ma ko mu ne ma li ma xam ba léegi kenn laajagut ma ko moo tax benn doomu bàjjenam daan na wax ne bu ngeen bu ngeen ko téewut téere dina gën ci bi téere mais téere yàgg na gën ci boppam bi kaa moom dafa gisu rek maanaam bu nekkee téere buy def juqeen nag moom moom loolu la yaakaaroon mais ñun weesu nañ foofu mais téere yaa gën a gën ci boppam bi ñun ñëpp ay téeram la ñun ñii yëpp ñun ñii gis nga ñoo xam ne dara si ñun te pourtant ay gën coow lañu bëri bëri kenn jaaxalul ñu dañu tim nit di ko gësam ba saa naan nii man tim na nit mu am problème ci weddi alxuraan la war def wala lan la war a def maanaam mu dem virage mu taxaw mënta dem ma ne ko lii yow lii nga wax alxuraan li la wax mu dem ba bëgg a weddi alxuraan gal gal bu cax bu doy war ko def mënul jàll loolu nag may sëriñ bi la yan yàlla guddal yan yàlla yokku yokku leeram sëñ bi jarul ñaanal dara sax ndax ci garante ak bàyyi la nekk fa man la bu haadal abd mawtu bi hubbihi wa mawtu bi hubbi ay aynu hayaati càggutee bu jàmm bii ñuy wax oustaz ba mooy mu dee ci mbëggul baay ci la dee koo xam ne ñaar fukki ba nga génnee àdduna ñaar fukki fan ak juróom-ñaar waroon nga am conférence Amérique dafa moo ko oustaz musul toog di wax ne damaa war a noppalu ko la ñom Dramé malik Dramé jàngale rek mo neexul oustad ba jàngale rek waxna ko tay dana ko waxat dan na an ak mom bogué tourner mu gis ay ministre ay borom xaalis di wax ak kenn nit ku jàpp tariqa tijaan ba ñoy mer gin dem man oustad ba waxtana kenn nit ku bëgg tariqa bi mo gën recevoir ay nit ñu joxe ay millions bëggu dara ci aduna loolu yalla loolu yalla motax yalla amna yalla ñun ñëpp ci mbëggeelam lañ ñëwé ma ngi sant ma ngi buñu démé ba plateau ya walaajee waxtaan lenn ci ay bindam lenn ci ay sampam lenn ci ay toppam loolu dañ ko fa waxtaanee ndax plateau boobu mu ngi foofu buntu kër ci sëriñ bi lii lenn la yoon rek pour waxtaan ñun ñëw nañ ànd ak mbooloo mu suñu Cheikh Ibrahim Al Khalifa ñu ngi ci gënnaawam nak te duñ ko duñ rente ak moom duñ ko dingat duñ ko moy duñ jëm hésité ci mom mom. daam du mom wax naa ma ne leen Muhammad kenn du mom Abubakar Saddeq kenn moom mais yonent bi mu génn àdduna kan moo ko doon Abubakar Saddeq est que Abubakar moo doon yonent bi mais doonu ko mais dañ koy xoolee mën a jëriñu Oustaz Ba kenn doonu ko maa la wax li yéen lu mu yoroon kenn kenn nu ko ku nji jéem a neexal ni la yow la nii nga yaakaar nii booy dox booy booy dox daanu gars yi dañuy wax ne ku en loo attanu sans doxin <laughs> Oustaz boo ko yéenu da nga doxin de kenn attanu ko. ne newoon ci moom ci nite rek newut ci kenn sarawaatan la lay wax rek nit nit nit coy yi nii rek wala newoon ci moom ci doylu masul laaj taalibe xaalis masul doo ci créé mbooloo pour ne mën na mbooloo mi ñëw moom jëriñ rek la woon da doon julli dem ku mun jëriñu jëriñu wax naa ko dagaa ba dagaa daj muqaddime mi ba yaan jàngal ko dugg néegam mu ngi am ay kaset yoo xam ne yow lay dellu guddi bu génnee waxtaan ak gars naa ko loolu mooy kon nag ku koy wutu ci wéraas ndigal la rek la dañ la fi teg nga war a ànd ak taalibe yi mais taalibe la ko gur ba duñ gis ñom ñaar gis kenn gi man lay ormal pour ñu mëna continuer Tali liggéey bi talé bu bëgg gis ñaar nak bu yaqo ëlëk yow bokk ci ñu ko yàq dañ kenn la sëriñ bi xamné mom moy mom rek ñi ngi nuyu njaboot gi yëpp ndax amna na ay doom oustaz ba doom yëpp dañu leen tawam taawam mokkal na alxuraan su ma Seydou bu gor na alquran Yunus mokkal na alquran bokk na ci kéemtaanu yàlla sax daa feebar dimanche Yunus na ko ma jàngal la alquran mu ne ko bàyyi bàyyi bu ma dee su ma dee nga jàngal ma alquran moom sëriñ bi waaye su ma dee bu ma kenn jooy Yunus xale bu ndaw fii la jàngee ci dem Mourtani euh, Nouakchott Abdoulaye Dem ma ne ko mu ne moo tax sax man moom moo ko wax de mu ne moo tax man man oustaz yéen a àdduna jooy moon ndax moom moo waxoon ne bu ma kenn jooy mu ne waaye nag ba mu génnee àdduna jàngal naa ko kaamil ndax moom moo santoon dem ba sax doom la mën a wàcceel kaamil doomam yëpp jàng te kim taan oustaz du tey ngeen koy gis de maa la ko wax fu jant bi fenk ak fu may sooyee da ngeen da ngeen ba loolu du fi caaxaan loolu maa la ko wax doom yi dañ tukkal àdduna doom yi maa la ko wax dañuy am xam-xam dañuy muus dañuy yeew dañu da ko dañu jàppee gëne duñ gëne de dañuy fees dell bu ñu waxtaanee yow da dañuy bee kàddu goo xam ne yow xamoon ko xoolal yooyu rek xool wax yooyu wax yu sew yooyu wax yu day waar la di wax di sant yàlla beneen yoon bëgguma guddal na waxtu julli jot na salaamaaleykum wa rahmatullah laa ilaha illallah laa ilaha illallah Wakoly yéenay liggéey Faydu Baay bi Sidi ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy